mu nekk joueur bu ñu gën a ràññee ci jogante bu mujj bi ñu joué woon fële ca Thiès jëm ci wàllum qualification ci Coupe d'Afrique des Nations ci ñu amul fukki at ak juróom ñaar Mamadou Gningue doon sol numéro 11 dafa daal di fasal boppam bu baax a baax. jël ñaari yoon tiitaru om di match bu ci njëkk contre Mauritanie bu ci topp contre la Guinée Bissau milieu de terrain sénégalais boobu moom sax moo mujjee jël titre meilleur joueur du tournoi Modou Ñing mi ngi juddoo ci famille sportive am fukki at ak juróom nekk espoiru sali ñax ñaxal daanaka ba mu nekkee xale bu tuuti la ko papam bi jël def ko ci mbagam pour mu nekk footballeur bu mag a mag ci at yi di jëm si maa ko jur Euh, yàlla def dogal ba itam man ma ma nekkoon doon jour nekkoon ci football bi doon ci yëngatu euh, te xam nga football doon na loo xamante ne du ñëpp ñoo mën a dem ndax loolu yàlla moo koy def daal. xam nga voilà daan naa football daan naa football football naa dur nag xam nga footballu Sénégal moom blessure rek yenn affaire yi mooy tax au dernier moment nag si laa bàyyi football bi. Euh, ma commencé di def ay euh, di coacher ay affaire ay nawetaan ak benn école football bi ma nekkoon fii à Saly voilà. fan la foofu la commencé. mais bon. au dernier moment daal si laa ko mujjee gis sama benn xarit bu ñuy wax Touré. yow ban euh, xaw na xaw na lii fekk sax mu ngi doon xale bu ndaw. ban âge. Euh, période boobu noonu. Euh, waa fekk mu ngi doon xale de. tuuti waaye waaw gars yi dañ ko doon xeeb. dem na boobu gars dañ ko doon xeeb nag bon xam nga football moom yàlla moo koy def si jàmm. waaye dafa mel ni lii du gulet ci famille bi nekk ci sali ñax ñaxal di diwaanu mamadou ñinga waaw mën nañu doon lu quoi parce que boo fekkee boo boo bokkee si famille issu fuwal kon boo defee lii dañ dañoo kon doon lu quoi mais moom lu moom lu mu am moom yàlla moo ko defal quoi suñu ñoom boo xoolee ñu suñu famille ñëpp ay jour lañu boo xoolee yaayam moom ancien basketteuse bëggoon na basket lool yaayam yaayam waaw papam tamit kenn moom des fuwal moom tamit fii moom bu ñu moo tamit papa tamit ancien joueur sportif waaw merci waaw légui yow talawam buma la doon wax tay ji mo la ñing talawam lan la lan nga mën def nga gëna ci ci ci ay qualité waaw parce que bo xolé fi ni amna ay temps buñ la football mom si kër gi ngay ñëw fi ni parce que man mi do wax ak yow club bi ma limal nonu fepp ma jaar rek bo xolé man may ni deux fois trois fois finaliste coupe du Sénégal remporté deux fois coupe du Sénégal ben coupe assemblée super ku ben yon finale parce que fii ne kër gi fii nii coupe yàgg na quoi mais talent bu ni Mamadou Niang moom macha allah moom mu ngi doog am si kër gi quoi parce que boo xoolee dañu football footballeur complet si moom la fekkee baax quoi complet c'est-à-dire que moom booy sax fii fan club ordinateur dañ ko tuddee parce que moom boo xoolee joueur boo xamante attaquant boo day day dugal day def ay passe décisif parce que tournoi nga ne kaulak

am na ñu bari ñoo xamante ne da doon génne ci mbedd bi bu fubalee après ku si dajeeg man ne ma sa doom ji fexeel nga génne ko fii yóbbu ko mu dem fubali. nit ñi daal ñoo leen wax loolu. fekk sax man gis naa loolu parce que man yor naa ko am na ci lu bari loo xamante ne bittuma ci moom daal voilà. jamono boobu ñu di ma wax ne ma bàyyi sa doom bi mu dem fubali bàyyi ko mu dem fubali ba au dernier moment ci lañu ma boole ak benn waay bi ñuy wax Touré euh, voilà mooy président centre bi. ci ma boole ak moom mu ngi tudd Gérard Sali Talla foofu la dëkk mu ñu boole après si la gisante man ak Mamadou Gningue en fait c'est un di du centre boo xam ne nii mën nañ ne ci pionnier yi lañ bokk mooy donc bi ñu créé centre bi en 2014 bokk na ci premier recrutement bi bokk na ci jours yi ñuy détecté ba recruter leen 30 30 jours la ñu recruter pour démarrer avec waaw moom la ñu ngi bokk na 30 trente yooyu ràññee ràññeeku woon ci aussi parce que dañu procéder par des tests tests yu xaw difficile ndax dafa bëri woon jours yu bëgg a 2014 donc. des centaines de mais yu bëree très, mhm. ñu war ci génnee 30 mhm. pour démarrer le travail Il y a ne moom Mamadou mon mi euh, phase de test yi il était sorti premier. À chaque fois, les premiers. À chaque fois, il y avait neuf coachs mhm. qui faisaient la détection. Chaque fois, le Mamoudou était sorti avec neuf étoiles. Donc, il euh, faut commencer avec moi. Donc, petit test, euh, foofu lay feeñee parce que quelqu'un qui est sorti euh, premier sur lu mat six phases de test koku jaroon na bàyyi xel mm-hmm. waaw foofu dal lañ tàmbali won ak mom mm-hmm. ñu tàmbali liggéey bi nak liggéey bi ñu ko tambalé Stade Caroline Faye avec on avait mis vraiment tous les moyens à leur disposition pour que ñu mën éclore ah, c'est des jeunes ñoo xamni ne seen formation yëpp ci gazon lañ ko def waaw daan nañ suuf. lan moo a de test waaw phase de yi am na anecdote boo xam ne bëgg naa ko fi wax mooy euh, moom moomu la ñu ngi bi koy indi di ma koo présenté comme joueur papaam euh, la parce que moom avant papaam moo ko doon encadré dans son école de football papaam entraîneur la yor école de football di tàggat ay xale moom it ah Saly la ko tàmbalee maintenant mu ngi gërëw. biñ ma ko indilee papam ñu ñëw ak sama ben xarit ñu né ma dafa am jour buñ ma bëgg présenter un jour qui qui joue bien biñ waxé talent xalé bi man leen wa ana xalé bi ñu ngi and ak ben xalé bu ndaw ñu ma xalé bi ngi ni il était trop petit leen mais dafa antan bal man ay jour <laughs> mom ci bopam sax dafa naroon mu nan papa ji nañ dem way ki xamuma nan dafa <laughs> antan bal moom moom <laughs> ci bopam Mm-hmm. donc ñu waxtaan ñu ne léegi comme nii la nañ ko indi au stade ah bu ñu def test yi donc man xaw ma woon sax Mamadou Gningue la tudd moom daal gis naa neuf étoiles yi moom Gningue. neuf étoiles mooy wane ne ñëpp pour ci yëpp d'accord nañ ci talent moom donc ka fa amoon ka ca topp huit étoiles aussi Modou Gningue la tuddoon un autre mm-hmm. donc bi ñu demee ba ci biir deuxième phase bi ci laay laajte kan mooy Mamadou Gningue parce que je voulais voir le am ñu ma jox information ba nek té doom la nag ci la ko woon ko mais ci am la ñew moom du jëng sa doom la mu ne ma waaw <laughs> mooy kiñ doon wax dafa tuuteeg yooyu effectivement il était très très petit mais très talentueux aussi très talentueux karma lu muy nek tout tank yépp dañul di wone bopam euh, mom en étant minime en étant minime il a joué deux ans la coupe du sénégal en cadette. le mhm. championnat première année bi soriwuñu mais deuxième année bi avec sa licence minime mhm. gagné le champion de région Thiès mhm. et il était sorti meilleur joueur de la région. sur la même année avec sa licence minime euh, euh, beaucoup équipe régionale de la région de Thiès bi dem les phases nationales je me souviens du premier match contre Catherine où il avait fait, je pense, cinq passes décisives sur les cinq buts marqués par la région du Thiès. Vraiment, foofu le, la mu ngi la direction technique ne fa rien di détecté boy, yi ñoom it foofu la lañ ko gisee. jaloore yooyu sax moko ko équipe nationale U17 bu Malik Daf. ba convocation convoqué ko ci U17 yi bi fa démé aussi euh, wax fa deug man invité nañ ma faire un match amical. Euh, ce jour-là mon ak papaam Andon, je dans ma donc euh, je pense que 5-0 on trouve aussi 4 passes décisives pour donc lii bettu ñu ci moom. maanaam commencé pression mais bañ suis ba mhm. parce que luñ koy soog football ñun ñëpp football ñu ñu ngi soog a football suñu tournoi mhm. fois loolu taxoon ñun ñëpp mhm. amoon pression mais bañ ñëwee ba si biir affaire dafa dañ pression bi ci premier match bi nga la la feeñee wala waaw la feeñee si premier match bi ak bañ koy préparé si la feeñee après mais yow par contre yow même bu fekkee amoon nga pression defoon nga loo xam ne nii lu leer la ci terrain bi ci premier match bi waaw loolu moom lañ ciy sant yàlla rek mhm. man pour man foofu defuma fa dara xam nga moo taxoon ñu dem dooruwaat gën a liggéey pour yokk ñun daal lu ñu gënoon a ñor si terrain mooy jël IFOA bi te jël nañ ko. Uh-huh. loolu moo ñu gënoon a ñor. Uh-huh. te def nañ uh-huh. bu nekkee ndaw nga nekk surtout nekk si benn étape. bon je pense que à bas âge la commencé parce que moom dafa yàgg bëgg football donc même moment bi nekk sax je savais que.

ñun qualifié rek lañ doon gis te yàlla def na qualifié nañ dañ préparé coupe d'Afrique bi comme niñ préparé FOA yi dem jëlaat ko indiwaat ko Sénégal Sénégal yëpp kontaan. wax nga ci kan bi de daa mel ni ambition boobu di mi ngi moo indi kan bi U17 fii ci Sénégal pour une première nag Sénégal mën a jël ko. waaw kon lu ma waxaat loolu ma si wax du bëri dañuy gën a dolli liggéey rek. kon nuñ préparé woon rek dem préparé waat. waaw ah, dañ jël kan bi indi ko Sénégal. bi mooy nga jëlaat meilleur joueur ci kan bi. waaw ah, loolu mhm. mhm. te yaa ngi ci tànkam. tamit waaw incha waaw am na loolu lu koy lu koy may mooy limite quoi c'est ah. moom te moom am na ko moom boo xoolee moom xale bu xale bu yaru la. Mhm. bu dégg ay conseil la parce que ñun moom duñ ñëw duñ xaati parce que ñun xam nañ haut niveau. xam nañ dafa nekk yëpp. parce que bu ñëwee tournoi bi mu jëlee UFOA bi dañ ne ko man dama ñëw ne ko UFOA bi jël na ko mais c'est terminé mais li li si kanam moo a metti fi nga jógee nii bi nga jël nii te ñoom boo xoolee ñoom Maroc dem nañ fa deux fois match amicaux dóor Maroc aller waaw dem Algérie dóor Maroc aller retour mhm. te boo xoolee a a mais dañ koy ñaanal yàlla mu def UFOA bi mën na double foofu noonu te xam naa incha allah bu ñu ko mu libéré mu joué ay qualité rek di ngeen gisar beneen moom la ñu ngi Maroc quoi te moom lañ koy ñaanal yàlla. billahi wallahi fu sax billahi wallahi fu balagul mais buñ demee ba si kan ba allah feeg yàlla may nañu ak fekkee di gis keneen kii fu balagul te nag dañ koy ñaanal yàlla ñu dégg ko fu raw fi ñu dégg ay Sadio Mané man xam naa man gëm naa loolu billahi wallahi ba nañ ko fa dégg incha allah. ñi ko formé am yaakaar lor ci moom ba di ko séntu fu raw Sadio Mané. on a démarré en 2014, mais on travaille avec des partenaires hollandais. En 2015, ils étaient là. Et chaque année, nous sommes En 2015 Wow. commencé nañ ñëw ci U20 bi fi tournoi U20 bi ñoom xam nañ booy bi bu détecté comme nous ko ñeneen détecté ñu le koy suivre bu baax talent bon il est bien suivi quoi il est bien suivi peut-être que nous lañ ko mais nous ont depuis 2015 ils le suivent avec d'autres joueurs qui sont dans le centre, qui sont aussi talentueux que lui. Nous ngi leen di suivre te euh, nañ jaar fi ñu a jaar am nañ ci ñoom. la a en fait parce que déjà y a wax hollandais est-ce que un dehors des hollandais am na ah, club européen yu ñëw. ils sont ils viennent de partout. des des est-ce que mën nañoo xam tuuti yi. non je dirais pas de club Nous mënuma wax club parce que c'est des agents qui viennent. Mhm. des agents ils viennent euh, au nom des clubs. donc club yi bëri nañ bëri nañ agent yi ñëw di woote fi mu nekk nii tey papaam téléphone am du fay man sama téléphone du fay mais li important mooy comme ñun dañ nekk centre de formation te xam nañ circuit bi euh, xam nañ xale fu mu war a jaar n'est-ce pour progresser pour yegg fi mu war a yegg nañ jël suñu temps liggéey donc ku ci ne rek nga jaar fi nga war a jaar bañ a brûler les étapes Parce que aussi, un gosse de 15 ans a besoin de parfaire sa formation Europe. non non D'accord on attend de voir des propositions concrètes C'est une propositions proposition concrètes on étudier mm-hmm. bon pas pas l'argent qui nous intéresse ici ce qui nous intéresse plus c'est un projet sportif pour, pour, pour, la carrière, pour le futur, pour le devenir du jour. Moi, je pense que c'est ça qui est plus important aujourd'hui. xale bu ndaw war ñu fi toog naan xaalis li ñu wax mooy fan lañ ko mën a teg foo dina mën continuer sa formation hein, mën a gën a exposer. yow fan nga xalaat ne ban équipe nga xalaat ne tey jii Modou Gningue bu fa demoon dina gën progresser. bon du ma ne tel club. Mm-hmm fii tel fi la wara dem wala warul dem fi yalla mo xam fu mu war dem ñun li ñu bëgg rek moy mu dugg fo xam ne nii dafay gën ci moom mu jaar fo xam ne du fa am ben tolof tolof mu nekk lo xam ne c'est pas déterminé par l'argent des choix yo xam ne non sportif dañ bëgg mu nekk un projet sportif qui ne voit que l'intérêt du jour d'abord parce que Ajax c'est un des choix Ajax c'est un choix alléchant kenn doit rejeté Ajax et dans le monde il s'agit de formation du football mais il y a aussi d'autres clubs en dehors de Ajax ont des propositions. aussi des propositions proposition non qui ñun amuñ parce que ni football rek fans, fan wax nañ teg foo xam ne na bal bi roulé rek rien que moom par là que football su desee lu football rek je pense que les gens jugeront après. ci wàllu comportement Modou ñi ngi ñu ngi koy seedeel xale bu yaru bu am kersa teg si respecté ay magam. moom mi bu amul woon respect boog boog teranga bi tey du ko am wante dafa am respect ndax bu mu ko dóoree maloon naa fay wante fayewul dafa génn dañ ko ne génn rek mu daal di bu doon beneen xale da ko day yàq ba su korogom bi wante bés bi yàqu ko daf ko def mu bax bok lor la amul dama ci wax. man mom lima ma gën a marqué si mom, ginnaaw football bi moy politesse bi dafa am yar jox ñëpp cër man man mi man mi di wax ak yow ni du jaar sa sama tour du jaar sama tour comme papa tonton la may wax te loolu lepp yaram moo tax. fukki fan ak japp fan wéru fan ak ben ci wéru mars moo di ñing dina dal di jongante coupe d'Afrique bu ñëk ci carrière xanaa rek di ko ñaanal mu def lu raw lu mu defoon ci tournoi bi ñu weesu.